jërëjëf kon asalaamualeykum maa ngi nuyu sama mbokki Kër Moussa yëpp euh, maa ngi mbo nuyu tamit sama mbokki waa réew mi yëpp réew mi laay jëkkee ndax su ma exister en politique ba tey réew mi moo tax ma exister am na nag ay reen yoo xam ni bu ñu tuddee réew tudd ba ci ay reenam reen yi dina law ba ci Momar Ciss mii dina law ba ci PDS dina law ba ci keneen koo xam ni yaakaar na ni bokkul ci li ñuy def dama leen di nettali benn histoire rek gis nga giiñoon mi taxawoon fii léegi ak ak man ba ñu nekkee ci biir PDS booba Momar Ciss mi ngi ci nijaayam nekk ca PS en 2000 Momar ci lañ ko jëli indi ko ñu ànd di liggéey 2001 ñu ànd dem députation 2002 ñu ànd xëccoo bi ñu xëccoowee Momar Ciss mii ak Guy Ndione ñoo nekkoon di xëccoo ñoom ñaar waaye tey dinaa leen wax lu bare ngeen dégg ko keroog man maa leen départagé ñoom ñaar sama dara daw ci Momar Ciss ma génn ma jox ko clé bi nga xam ni moom mooy galgal Guy Ndione mu daaneel ko waaye bi ñu demee tey ba fantasiro diggante Ablaye Wade ak Idrissa Seck ba ma fàqee jëm ci Idrissa Seck gii ñoon dafa fàq jëm ci Idrissa Seck ñu bàyyi Momar fa mu nekkoon kon ka ma tëraloon moo wëlbatiku ànd ak man ba ñu àndee ba tey nag mosuñoo bàyyante waa kon bu ñu demee ba tey ba ñaar ñoo ñu doon xëccoo ki ñu doon xëccool mu tax ñu mer muy Idrissa Seck Idrissa Seck wëlbatiku ne yéen dem leen ngeen àndaat parce que yéen a bokk maam yéen a bokki reen ndax wolof fay wax ni njibit bo gis ci euk la sax kon euk ga fa delu wat waxu ñu ne Momar sis lañuy soutenir pour éternellement lolu mënul dé c'est pas la personne de Momar mais dafa am idée wo bo xamni mom lañu japp ni Idrissa Seck Thiès le dëkk Macky Sall ma nga dëkk fatik Macky bu wolo Idrissa Seck ba indi ko ko ci wetam ne ko Idrissa Seck nguur day jeex te man maa ci nguur gi li di ñew ëlëk kenn xamul lan la tay na mi ngi préparer Idrissa Seck mais ñun buñ dé war réew mi loolu Idrissa Seck wax ñun Idi daf ni kilifa du ko ci mbedd ku am kilifa kon ñun waru kenn ñoo gaganti te kenn ñoo xam politique han ah. ëpp ñu ñu xam xam politique te kenn benn la affaire lay waxit moom ma nga la tok ñun kenn ñoo jënd kenn ñoo jënd suñu ngor lañu am suñu tawanga dundé suñu ñak kenn ñoo jënd

ñun la personne de Momar du moom moo ñu intéressé di ko xeex mais un idéo la ñuy xeex boo xam ni moom moo arrangé réew mi moo arrangé Macky moo arrangé Sénégal moo arrangé Kër Moussa ñu dox ci gagné ànd suqali Kër Moussa jërë ngeen jëf. merci mbooloo mi ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam olof dafa wax ne sangaleeñ su dajalee wat wer ñu ne benn bantu xat soo ko téye damm ko wante sayu xat yombul damm loolu mooy li nga xam ne mooy li suñu leader yi gis nous créons une li coalition bernard Bok Yakar. Bennoo Bokk Yakar, APR Mingisibir du parti Maxal. parti socialiste Mingisibir. AFP Mingisibir. MDR Mingisibir. renouveau démocratique Mingisibir. ngi ci biir donc Idrissa Fek. ak Macky Sall joxante nañu loxo li ma wax nii ci tubaab laa ko bindoon mais dama koy wax ci olof ndax ñëpp dégg ko ànd boobu war na mën a nekk ndax ñi ma lim ñi ñëpp kenn ku ci nekk ci ween politique Léopold Sédar Senghor nga nampe moo xam AFP la moo xam parti socialiste moom re moo xam renouveau démocratique

fon lon moy je ci bir Benno Bokk yakar à tous les niveaux soudé nak commune de moussé Momar Ciss maire de la commune de Kermoussa... au conseil des collectivités territoriales ñi ngi lay remercier di la féliciter li tax ñu def ko dañ xam nañ ko 2002 nga ñu hérité fii ci commune commune communauté rurale bi depuis booba ak léegi jéego yi fi am yëpp teg nañ ci suñu bët mu jéego ci ndox mi mu jéego ci éducation mu ci développement environnemental donc yoy yëpp suñ ko dajalé xool nañ y a pas de meilleur candidat que Momar 6... pour la commune de Kermoussa. donc les alliés donc je porte euh, la parole, du Parti Socialiste, l'AFP, MRD, Renouveau, investir nañ Momar Ciss mon candidat pour une belle victoire au soir du 23 euh, janvier merci